football euh, lu yato yaatu dinañu a tamit euh, lo xamné euh, xewna fi ci stade Maniang Soumaré nak ci football la ndax ci eu bi nañu une visite de la représentante de la fédération internationale de football amateur la FIFA ànd la fédération sénégalaise de football ñu a def si visite suivie des chantiers dinañu waxtane tamit Ligue des champions euh, ci football Teungueth FC dont jongante fi ci stade euh, La Dior mais aussi dinañu dem Mauritanie ndax nak jongante nañu euh, final ba ci U20 yi tey jii nag ni ngeen ko ñu ngi ci 8 mars 8 mars ko ko wax l'année la date internationale. Euh, de la femme nga xamné ñom dañuy féete les droits de la femme motax tay bu ngeen gisee ci plateau bi prier nañ ci euh, kenn ko xamné ne euh, la tay fi ci

tellement Fallou vraiment Khalifa je kon raté na parce que ma fille, ma fille, ma 8 mars Je en tout cas ça Lamine donc 8 euh, mars de parce que euh, c'est une journée internationale euh, Ndeye euh, waxna ko léegi yeen jigen ñi fi ci euh, prestige vraiment euh, feete ngeen ko hein, lek gi doyoon na naan gi doyna na feete ngeen wane ngeen am ngeen mbégte et vous étiez tout tout blanc vêtu loolu dafa firnde xana lan mo tax ngeen tamu la couleur blanche. wa tay mom dañoo jëloon couleur blanche ñun ñëpp ñu ne nañu sol blanche couleur la couleur blanche pour comme que fani gis nañu dëkk bi tàng macha allah yi xew yi mom doyna war torop ñu ni woon nañu sol ñun ñep suñu couleur blanche pour indi euh, indiwaat la paix. la paix jàmm am ci Sénégal mm. voilà. lool dal moo tax ñu jël solution c'est c'est formidable et c'est mm-hmm. euh lo tax makoy koy ci ci sport bi parce que sport aussi euh sport limuy muy njëkk moy la paix la fraternité euh le respect de l'autre ça ça fait partie des vertus euh, du sport ñun ci loolu la ñuy ubbee émission tey am na loo xam ne euh, jaar na fi mu ngi euh, mais le sport est là pour appeler tout le monde à la paix et au fair play parce que ça fait partie des vertus du sport tey nag bu ma gisee jigéenu prestige yi tamit euh, marqué loolu avec ce signe de la paix tout blanc vêtu vraiment ça donne honneur et ça donne satisfaction parce que nak yéen yéen ay yaay yéen sœur yéen soxna yéen lepp bu ngeen à la paix je pense que euh, le message va être entendu par tout le monde. bien sûr comme comme euh, ci sport la ñuy la ñuy comme tu l'as dit euh, qui dit sport dit fair play donc lu amul fair play mom baax benn ñoom ñu ñëw indi la paix vraiment mom moom ñu lu di ci parce que xam nga temps yi dëkk bi xawna xawna xaw yëngatu bon donc su jigéen ñi amé idée bobu war ko mën a ci biir réew mi xëy na peut-être que loolu rek mën na jur jàmm quoi parce que en général sax ñoom li ñuy wut li ñuy wut. jàmm tey rek ñoom jàmm rek li ñu wut jàmm te duñ ko am sax bëriwul. waaw est-ce que. non fu ko wootee dinañ ko am na foo xam bu ñu fa eggee rek dinañ ko mais je revendique le côté du le côté du sport nous sommes dans une émission sportive euh, wax naa ko légui tantôt. Euh, l'une des vertus du sport, euh, c'est la fraternité, la camaraderie, euh, dans l'adversité et le fair play. Et très souvent, euh, Khalifa Ndeye, comme on fair play, nous sommes dans une posture de faiblesse. ki nga xam ne moom la ñuy gagné ci moom gagne ñu fair play te ki ñu gagné moom dans une posture de faible parce que nous lañu je gagné moom lañ ci mom la sentu euh, fair play mu accepter la victoire de l'autre xamné euh, souffrir malgré euh, gagné nañ donc mettre nañ ko dans une situation difficile mu accepter ce verdict là c'est pour dire que dans cette situation là aussi on appelle au fair play pour tout le monde qui gagne on lui dit toujours gagner dans l'humilité ki ngay gagné nga xamné dang gagné aujourd'hui dang ko jitu aujourd'hui mais ëppoo ko xam-xam euh, dominer dans tous les sens mais pour aujourd'hui tu as gagné qui qui ñu ne qui gagné dans l'humilité accepter ne gagné mais aussi mu défaut qui mu gagné te ki ngay compatir à sa à sa défaite dans cette situation actuelle on appelle au fair play pour tout le monde et les femmes ont donné le temps, je pense que la paix va se rétablir progressivement nit ñi autour d'une table de négociation de bi qui ci à leurs besoins surtout surtout surtout arrêt bi nga xam ne déjà xam nga rek mbas mi yóbbu nañu foo xam ne metti na metti boo xam ni. waaw ar yóbbu nañu ardo ñu xamale ko ñu bëgg ñu. quatre appuis la ñu mbas mi yóbbuwoon rek <laughs> léegi nag waa ji dañu nërmeelu nag parce que bu ci bu bu ci affaire bi amee moom vraiment loolu mooy nañuy nërmeel nag dëkk bi quoi te vraiment loolu ñu ñëpp ko war a bañ heureusement que jigéen ñi fay l'émission en rigolant parce que li lañ bëgg. dellu si heureusement que digagne ñi fagaru ci jóg ci takku ci uniquement mu tombé sax huit parce que bu tomboon benn jour sax xëy mu gëna mëna mu gëna ñang mais comme dafa tombé 8 mars. après xëy peut-être que yalla mo xam ni mu ko jaarale bu mu tombé 8 mars nga xam ne digagne ñi ñoo jël à le propre compte régler problème bi une bonne fois pour toutes et je crois que ne sax boo dégloo rajo yi xam ni affaire bi mi ngi nek sunu une bonne une bonne fois digagne ñang koy jël en compte ñu koy régler aussi. jël en compte euh, mais euh, félicitations te nag. Euh, euh, li ci gëna neex moy dañu joxe lek joxe ñam joxe ñam dafa am lu mu lu mu lu muy signifier ci suñu culture yeen tay loolu ngeen def fii ci précis joxe ñam inviter nit ñi ñu ñëw jox leen ñam nit ñi ré waxtaan kontaan et kontaan gi ñu kontaan ci kër gi yalla na law ci ci ci dëkk bi yëpp law fépp la paix revient et que le sport reprenne et c'est pour rappeler que cette semaine on n'a pas joué on n'a pas joué tout simplement parce que situation bi ni mu demee motax toutes les compétitions ont été reportées à une date ultérieure que nañu le président Sayer Seck mu wax ko représentant la fédération né, dëkk bi mënul nekk ci ay jafe-jafe ñu naan dañuy organiser ay football malgré que le match Teungueth FC a été retenu mais ça c'est la c'est la CAF. c'est la CAF CAF xam nga côté boobu moom du du du problème yi am fii du ay mbiram. problème bi bi am mbiru Sénégal donc daf ciy maandu. donc kon day ko maintenir programmation mais ñun ñi nga xam ne ñun la concerné ñun comme ni ko Saer waxee il faut ñu xool exactement ndax loolu war na mën a nekk wala waru mën nekk te effectivement xam nañu mënu nekk mais toujours rek est-il que mooy sànq li ñu wax rek xam nga li ñu wax naan dañu mbas mi daf ñu yóbbu carte appui kii yóbbu parce que xam nga aussi ñi nga xam ne sport kese la ñu am bu ñu demee ba trouver solution ci biir mbas mi solution ba solution ba sax doyul mais ñu ci sooxande en attendant bu lii ñëwee nag faf poussé ñu ba ñu arrêté là fay da fay da fay nek waaw day yàq lu bëri day nek catastrophe parce que xam nga koo xam ni loolu lay dundee vraiment métti na trop nga xëy xëy rek arrêté ko comme ça. mais je pense que semaine prochaine les choses vont revenir. vont revenir waaw yaakaar nañ ne daal mbir mi fi mu nekk nii. mu dal waaw ñëpp dellu ci jàmm ñu mën a delluwaat gis nga tey pour nga xëy sax problème la woon da ngay da ngay tiit sax pour génn parce que dañ naan ni naan mbedd mi wóorul.

Euh, jaale tout le monde sportif euh, le football en particulier euh, ndax ku ñu sport bi dafa muy football bi fédération sénégalaise de boule hein. muy Gazan Ezedine Gazan Ezedine président. Euh, fédération sénégalaise du sport boule euh, momo moo momo moom adina, euh, aussi moy Covid 19 Covid 19 bi comme ni mu yóbboo Pape Diouf malheureusement cette pandémie continue à faire des dégâts ñu ci jalé tout le monde tout le monde sportif mais Gazan Ezedine yamul won il a été aussi le président de la renaissance de euh, Dakar ci ci football bi renaissance de Dakar xam ngeen ne na fi deux fois euh, finaliste de la coupe euh, du Sénégal ñu ngi le ne en 2000 déjà dans la finale 2012 face aux HLM de Dakar et que en 2018 aussi joué dans la finale face à Génération Foot kooku moo génn àddina ñu koy jalé le monde sportif diko jalé ñep Khalifa. waaw diko ah, di le monde sportif effectivement parce que du du moom rek d'ailleurs mais xam naa ne da nga commencé ci moom rek donc ñu yemandi en attendant ci moom bon parce que euh, Gazam euh, li mu li mu def ci sport ci Sénégal bari trop et d'ailleurs faut pas faut pas faut pas que ñu fàtte aussi que ni dafa dafa le football le football le football libanais pratiquement presque moo ko dugal au Sénégal parce que boo xoolee euh, formé na fi ay la famille Sahli formé na fi vraiment pas mal de de jeunes libanais yoo xam euh, ils ont fait les beaux jours de l'US Gorée ni ñi euh, euh, Renaissance donc ce euh, veut dire que il a toujours contribué ci sport ba nga mais comme feebar bi rek ni koy waxee mais xam nga ne affaire bi moom bu bu la fekkee yenn feebar yi moom bu ñëwé rek loolu dootul dootul la may dara quoi fi nga fi mu la fekk fa la lay fa la lay yóbboo moo muy affaire bi en France donc ni euh, euh, tout le monde sportif mais euh, wax nga ko international footballeur C'est Babacar Ba Saint-Louis aussi aussi tout le monde sportif. waaw Babacar vraiment je trop trop trop trop trop parce que pour beaucoup de raisons parce que me ça me grande d'abord mais dama amoon chance à chaque fois que ça sage yu bëri ma def ci football tomber toujours mon mon nekk fa finalement. il a été directeur du stade on a fait l'académie mondiale du football ensemble futuro il est ñoo ko mais da ngay gis ne Babacar euh, bu ñu masaan egsi la première des choses moi non ça ça ça se fait à Thiès ah non kon Khalifa. wutal wutal ñu bara dakas bala muy jógee saint bi lay lijeenti bara dakas bo xam ne Thiès lay avant mi ñew tout temps mom ak ndam ci yalla également Petit gay vraiment dem dem bi dal métti trop trop trop trop trop et puis bon lolu moy pas parce que mu bokkon aussi ci le carré des baies waaw Babacar Ba bay Touré Badou gay Bamba Sano bon suñu togué ba moment bi baies baies di wàññeeku comme ça parce que ñent lañu won je crois ya ils ont marqué leur

Hein, euh, Je euh, final la euh, bi Ghana ak Uganda. Ghana moo buts à 0. mais dañ koy dëxañ ak demi-finale demi-finale bi tamit doxoon Gambie ak Tunisie Gambie troisième place gannaaw bi mu daanee euh, Tunisie ba ñu demee ci série euh, tir euh, au but ñaari équipe yi dañoo témboo woon ah kenn dugalul woon dara sa camp morom ñu dem ci jongante daq dóor ci say mbaal ca la Gambie yóbboo ndam li ñeent penalty la dugal Tunisie dugal ñaar am na ñoo xam ne peut-être ñi suivrul woon les phases éliminatoires fii à Thiès. mun na leen Gambie au départ petit poussé avons terminé à la troisième place mais nous qui avons suivi la Gambie surprendre nous et que man bokk naa ci ñu ne Gambie mun le titre en Mauritanie Khalifa je pense que nous ne sommes pas trompés parce que dès la première journée wax nañ attention à cette équipe de la Gambie malgré que score bi ñu ko et on avait dit attention à cette équipe de la Gambie. Ce gars est dans l'autre en arrière ci émission du téléphone. on avait bien dit que Gambie bi la soirée effectivement. Bon, parce que Gambie dina pourquoi dina parce que gagné nañ ko 4 buts à à 1 mais ci biir 4 buts yooyu peut-être que xëy na argument yi mu amoon et puis parce que nit rek lañu aussi par par erreur d'arbitrage mu jël ci 4 buts mais après moom moo mujjee jël coupe bi bon donc kooku nag bu jëlaatee coupe bi fii à Thiès war war a dem représenter Gambie fële mais da ngay sentir que ni Gambie xaw ma gisuma ñeneen équipe yi bon mais boo xoolee boo xool au fond. mais troisième euh, place c'est une bonne place. non très bonne place parce que boo xoolee ñëpp ah ñi ñu suivre woon Gambie ñëpp xamoon nañu Gambie mii man maa ngi ko doon xool sax final ah. yaa ngi seen tey tey tey parce que 1 ko gagné en ah. demi finale. j'ai bien suivi le match d'ailleurs parce que amoon na possibilité même de fois d'égaliser pour euh, bah, contrairement ak euh, contrairement à la finale. bi nga xam ne moom la kër gagné moom la Ghana gagné bon mu nekk quatrième finale am aussi Ghana Ghana bon donc. Et euh, succédé euh, euh, au Mali Mali a jëloon en 2019 mais en 2017 Zambie moko en 2015 Nigeria Nigeria. nak mo ëpp lu lu mu jël parce que en 32 ans de euh, compétition Nigeria gagné na ko euh, ñaar donc moo ëpp li nga xam ne euh, na ji il travaille beaucoup sur la petite catégorie mais attention les autres équipes viennent parce que soo gisee Ouganda ñëw final gis Gambie mu ñëw ci troisième troisième place Ouganda kenn xaaru ko fi mu en finale ça aussi c'est une bonne performance Euh, cela dit que le football et voilà ñëpp ngi liggéey daal Afrique ñëpp ngi liggéey fi mu nekk nii te ñëpp xam nañ ne ci petite catégorie bi lañ koy defee mais mais duma ma terminer loolu sans wax ne ñun Sénégal aussi on était à la coupe à la te loolu dama ciy sargal jigéen ñi parce que gis nañ ne Adja Adja Cissé bokk na ci arbitre yu jigéen yi nga xam ne demoon nañu fële ca euh, ca Mauritanie doon officier sa naataangoo arbitre bu jigéen.

Saint-Louis mu daan naa daan naa basket mais dama dem ba benn moment ma arrêté waaw xam nga école la woon école boo demee foofu dañ la daan pousser pour nga def sport bi moom mais ba mu fa jógee après si laa ko arrêté. si bëggoon naa ko moom ba koy commencé dañuy dem defi chaque mercredi soir sax dañuy def ay interclasse classe bi contre classe B mais da daan neex da ngay dem def sa sport marqué ah euh, xaj na nag ñun sunu sunu sunu structure euh, fii euh, ci sunu sunu kër gi gisuma jigéen ñi tàggat yu de daf yi tàggat yaram fii gisuma ko fi ah, ku fi tàggat yaram fii ni ci jigéen ñi apa ah, ah dañ ko war a def fii nag ah, ñuy yëngat waaw ngeen yëngatu ñu ñu gis ne jigéen ñi <laughs> tamit ñu ngi yëngat seen yaram saal yi bari nañu buñu joggé ci 8 mars mën nañu yaakar né euh, sous peu de temps war nañ mëna sax am suñu équipe. voilà fi dé est-ce que góor ñangi tagatu sax fi góor ñi ah xana nga laaj après ñom Moussa Baye yoy ba xam euh, góor ñi ñu tagatu tàggatu. waaw ah. mais mais nan nga gissé euh, sport ak ak jigen wa sport mom défar sa yaram la rek jigen mën nako def. vraiment te dara du si du la si gaañ j'espère moo tax euh, jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi def sport man dama trouver que loolu kii seen yaram la daal seen kii de santé day gën a seen santé daal de gën a yokk man de loolu laa ko gis. pour euh, pour vous euh, les les les les femmes bokk naa tey loolu lu ñu la lu ñu gis mooy jigéen buy def sport.

jàngal nama te boko ko gisee ba léegi da ngay yaakaar ne xale bu ndaw la waaw <laughs> te jàngal na ma jàngal moro yu bëri elle a participé à ma formation au CEREPS moom ak tant d' de femmes hein, yo xam c'est une longévité dans le sport euh, daf leen de maintenir toujours en jeune. comme les hommes aussi hein parce que muy góor muy jigéen tant que tu tu pratiques du sport. parce que ñun il nous arrive parfois di joxe suñu âge gars de nous ñu jox tandis que non c'est pas vrai non non grand loolu wala nga romb ça, à mon âge boobu parce que or voilà mais c'est tout ça c'est à cause du sport hein du leneen parce que jàng nañ ko xam nañu li muy jëriñ donc di ko pratiquer donc finalement di nga ci mën di maintenir sa bopp ba euh, fi nga xam ne foofu nga war a mais avec cette euh, cette date du 8 mars yéen vous avez vous avez demandé euh, vous fêtez les droits de la femme

moo je ah, euh, c'est pas spécifique aux femmes aussi hein est-ce que soxla ñu euh, une une journée internationale des droits de l'homme parce que quelquefois femmes aussi dañuy maltraiter les les hommes hein. Ah, c'est une façon de de farcer mais en tout cas dañ leen di féliciter bu et dans le domaine du sport ici au Sénégal les femmes gis nga sunu suñu U20 yi sunu équipe nationale jigéen yi aussi ñu ngi def des pas de géant sunu arbitre yi wax naa ko léegi Issa euh, je dis aussi euh, bonsoir à Fadouma ñoo ñëpp elles ont marqué leur territoire. Euh, Fadouma Fadouma comme arbitre mais mën nañu xool sax plus loin parce que bu ñu le secrétaire général de la FIFA. nekk une sénégalaise. c'est ça ah, donc kooku faut xam ne fu fu. bi ci xam la parce que le président comprend que nous mais euh, FIFA de de de de sept plateurs ba diriger le football. parce que les présidents je Joao Avalanche diriger pratiquement ce sont les secrétaires généraux de la FIFA qui ñooy diriger le football la preuve gis que euh, le temps est passé c'est l'administratif temps yi rek ñëw na fi te problème yi nga fi yu bëri jigéen la te pourtant jigen la moom mooy régler problème problème footballu footballu Sénégal gi yëpp donc kooku ça prouve que jigéen ñi am nañ trop ci sport bi léegi trop sax non gàcce ngalaam parce que sport bi léegi moom presque ñoom ñoo ñoom ñoo ko ñoo ah, leen di sargal bu baax a baax ci 8 euh, mars bi euh, loolu nga wax sax euh, ci la ñuy duggee ci semaine bi stade Maniang Soumaré xam nga ñu koy ñu koy defaraat Nous euh, nañ travaux euh, depuis euh, quelques mois amon nan ak lu fi muy taw yenn situation mais actuellement L'IGB bi à des pas de géant. Il y avait une visite des chantiers la représentante de la FIFA Mme Kamara, fi madame Camara le maire de la ville de Thiès muy le président Papsidilo, la fédération le.

tandis que bu fekkee ne bii gaaw na pare moom vraiment bële day noppalu euh, léegi boobaa buñ ko alterner rek automatiquement day xam naa aussi bàyyi dañu xel ci loolu. bàyyi dañu xel ci loolu. gis nga représentante FIFA bi jigéen la mu ngi nii jigéen la moom moo ñëw pour euh, taxawal fi FIFA topp liggéey bi euh, dafa coïncider ak seen 8 mars bi c'est pour dire que les femmes vraiment elles sont partout et ñu ngi gérer concrètement li leen jox avec efficacité cette dame là wane waat na xam nga généralement ñom elles sont comme ça hein ñom bo leen dénkee ben affaire ni ñom dañ ci dem ba jeex dé buñ ci dem parce que sen sen cest à que ñom sen tricherie mo moo wul ci ci ci ci ci liggéey c'est-à-dire que nit ñi mel non lañuy wone quoi soit dama tayal dama tayal dama sawar dama sawar te jigéen noonu la quoi par contre nak chez nous mën nga ko mën sax ba paré di duggal yenen esprit yo xamni bokku ci waaw mais ñom voilà. <laughs> très bien di euh, fàttali rek ne euh, ci stade Maniang Soumaré bi euh, tribune bi nga xamné fédération sénégalaise de football moko digone wa Thiès parce que le président Augustin Senghor mu jëlone engagement ak la fédération né au delà du gazon may fàttali rek né projet FIFA Forward bi pour gazon bi la. pour gazon bi la. yeneen yi fa dess yépp yi nga xamné dañ ko fay def ay additionnel la fédération mo may tribune bi.

mën nañu japp ne Maniang sumaré dina am 6 vestiaire té lolu président pap Sidi wax nako parce que dañu bëgg euh, à l'instar de tous les stades que équipe bu nek heure bo duggé nga jël sa sa tribune et que Maniang sumaré aussi dina am nawétane dañ ko fay jouer te nawetaan quelquefois ñu programmer ay 3 matchs ci ngoon ci donc 3 matchs équipe bu nek mëna am sa vestiaire tout est prévu là donc effectivement mais euh, prévision bi euh, c'est du pratiquement toujours comme nous à la FIFA. parce que ça boy bis ñu tabax légui rek dañ koy def ci norme FIFA parce que ëllëg boko bëgg utiliser pour une compétition internationale nga mën ko utiliser donc force une compétition internationale dafa il lay exiger quatre quatre vestiaires donc gisoo euh, la jor ñaara fa nekkoon yokk ci yeneen deux donc il lay exiger lolu donc kon euh, euh, pour vous dire que gars yi ay liggéeykat lañu ils anticipent c'est-à-dire que lu FIFA demandé lepp lu ñu tabax rek dañ koy def ci norme FIFA nga xam que léegi fu ne nañ fa jouer léegi Coupe d'Afrique fu ne nañ fa jouer Coupe du Monde euh, ñoom ñëpp nag biral nañ ko Jo Sambou euh, le maire Talla euh, la représentante de la FIFA Madame Camara mais au-delà des tribunes Maniang Soumaré c'est intéressant au delà des tribunes yi nga xam ne dinañ ko fa defaat ak gazon bi ñuy posé euh, gis ngeen wane nañ ko léegi ci visite des chantiers bi euh, ci ci gannaaw euh, camp yi ña fay prévoir aussi le siège de la de la ligue siège de la ligue nag ci fédération sénégalaise de football mooy may ligue yi ay siège bu ñu amee foo xam ne nañ ko fa construire mais Thiès dañoo dem au delà de loolu au delà de de la du siège ñoom dañu ne du yem rek ci siège de la ligue mais dañu bëgg tabax lo xamné dañ koy tuddé maison du sport nga xamné du ligue bi rek mo fay am mo fay am siège mais football yépp yi nga xamné dañ koy def ku ci nek bo ñëwé mun fa am sa sa siège mom lañuy tabax ni corpo bi am fa seen seen place football nawetaan bi am fa seen place ñëpp ñi nga xamné dañuy def sport am fa seen place motax tuddé wuñu ko sax euh, siège mais la maison du sport mais c'est comme kooku loolu si je me rappelle bien je crois que Khalatou président Ligue de Thiès là, on ak Sidi parce que mën bëggoon mënoon na ko yemale ci football comme ni nga ko mais pas ça parce que Dembo actuellement ni boo xoolee stade Dembo Diop euh, ñoom ñoo fa nekk football basket handball volley ñoom ñëpp am nañ fa sen, sen, sen, sen, sen, sen, siège donc loolu ça prouve que quand même euh, na quand même parce que am idée bobu mo gën maison maison du sport am am maison du sport bi moo gën fouf am am ben siège du ligue kese kese kese que c'est ça qui est qui est prévu là-bas mais euh, lool nak c'est en collaboration avec euh, le maire euh, Talla Sylla parce que nag moom moo facilité loolu euh mo joxé yenn yenn site yi te it mo am collaboration avec fédération pour que ñu mëna a jël Maniang Soumaré transformer ko à donc.

mais sa papier ba la yaa ngi fàttali ne match Tëngéej FC ak Mouloudia maintenir nañ ko maintenir nañ ko nag ba jongante nañu ko euh, mulujaa moo mujj daan Tëngéej FC benn bal ci ci dara. waaw euh, Mouloudia mujj na ko daan mais Tëngéej FC moom def na si lu mu mën. mais malheureusement mujj nañ ko daan moom benn bal ci dara. donc xanaa di ko encouragé waat rek mu gën a góorgóorlu préparé waat yeneen matcham. incha allah ci loolu Ndeye Comba wax xalifa euh, bi ñu laajee sax seen entraîneur bi. Euh, de Youssouf Dabo xamal nañ ko ne mais moy ñaari lu jël bi est-ce que euh, les chances de Teungueth FC mais le mu tontu lu am solo la euh, ci jafé jafé ci la xamé jambar mais bu yombé ñëpp ay jambar, lañ comme nak dafa nek ci situation bu jafé ci la sentu ñom ñu nek ay jambar muy muy message bu am importance les chances sont là mais il faut c'est vrai que c'est difficile mais fii la ñu war a wone lui il est optimiste pour les matchs à venir mun nañ ko ko gëmal parce que Teungueth FC même bu ko a gagné bu moom Teungueth bu gagné woon Mouloudia 5 à 0 kenn du wax parce qu'ils ont fait un bon match mais ils ont raté euh, l'efficacité dans le dernier geste. Waouh, mais Goku, c'est parce que xam nga euh, le football dafa am dafa am dafa am dafa am yoo xam il faut que nous ñi di ko di ko di wax parce que aussi quand on est là uniquement pour pour pour pour, pour réagir doo dem doo il faut agir et non réagir te nga ñu mu jouer coupe d'Afrique afrique loolu boo jouer coupe d'Afrique afrique da ngay parce que aussi da ngay une équipe bu ñëwee sa dëkk da ngay jël le match à ton propre compte y a jël décision Yep. même bu fekkoon dañ la ko da nga koy jël ça ci ci ci ci ci ci contre ñu mën comprendre mais doo ko jël ci contre adversaire bi moy ñew di le bousculer di le bousculer di le bousculer di le bousculer bu duggal la bi reculer nak nga commencé réagir légui nga réagir mais muy mu lay contrer ngay réagir muy réagir ba match bi jeex nga ne nga ne xawna ko ray mais xaw ko rey. parce que moom am lu mu wax tamit lo xamné ñepp ñëpp ñu ngi koy seetlu heureusement il a dit amna na benn émission fi on a parlé tellement de ça Khalifa je l'ai entendu de la bouche de Youssou Dabo mooy Sénégal il faut que ñu ñu ñu ñu liggéey ci lolu bu baax moy heure bu ñu dajeeg équipe boo xam ne daf ñu def bloc médian wala bloc bas on a des difficultés. te moom wax na ko wax na ko nee na loolu sax mu ngi commencé nekk feebaru Sénégal parce que li war a mun a régler problème boobu wax na ko ñun waxaat nañ ko fii à plusieurs ñaar arme ba ñett arme nga am ci bloc bas. mooy soit nga jël bal bi percuter leen dem sortir venir de loin ou bien des frappes de loin ou bien des infiltrations ñett yooyu la te ñett yooyu yëpp moom nee na seen joueurs bu ñu leen waxee toog leen bu fa yàggee ñoom ñooy génn. donc ils n'ont pas pu régler cela vous problème, effectivement mais loolu base bi mais c'est la technique parce qu'il faut être technique parce que xam nga euh, naar yi facilité Le bloc bi ba ba ba dañ ci bloc bi oh dañ ci parce que techniquement ils réussissent ils réussissent leur contrôle et leur passe. Qu'est-ce que euh, en football les deux fondamentaux là à chaque fois dans dans un match de football généralement pour ngay créer danger ci équipe adverse de day yomb day yomb ils réussissent facilement parce que boo xoolee façon bii ñu dugal boo xoolee également euh, seen réaction da ngay sentir que techniquement nous ñoo ñu dominer ñu dominer ci côté même si on leur crée des problèmes sur le plan tactique mais sur le plan technique ñom dañuy dañuy dañuy dem motax moo moy tax souvent ñun mëna nañ leen sonal trop sur le plan tactique team sen camp yi kii mais techniquement pour mettre le ballon au fond xam nga tënkee keroog comme ci la di comme wax nga ko léegi bu dugaloon ñett ba ñent en deuxième période kenn du ko weddi bon donc mais après mais mais après mais après après avoir pris un but waaw parce que moment bobu boobu euh, waaw très tôt parce que tey pourtant équipe bobu wut na ko les gens sentent que ne kii mi parce que parce que gars yi bu ñu ñëwee deux dëkk li leen gën soxal c'est de marquer le premier d'abord pour te pour te perturber pour te créer des problèmes et en cas d'égalité ont toujours comme euh, ils avaient marqué euh, un but à l'extérieur ok c'est bon donc yooyu la waxtu bi mu ñuy euh, mu ñuy xocc day Comba ci CNEPS excellence lañ koy jeexale tout simplement parce que à l'arrêt du championnat mooy journée bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko reporté pour euh, raison yi ñu expliqué lii CNEPS euh, def euh, deux journées dem à Alassane Djigo daan fa Dakar Sacré-Cœur recevoir fi en match retard le Casa Sport daan ko mu nek ben période boo xam ne CNEPS man deux journées yoy la wax Tëngéej Dakar Sacré-Cœur ak ak ak Casa Sport ah voilà Dakar Sacré-Cœur voilà donc euh, c'est c'est trois euh, journées yo xamné té te nañ ko fi moy championnat bi soy gagné di dem ci ko actuellement le CNEPS est 5e tout simplement parce que euh, Pikine moo moko moo ko damee euh, ci meilleure attaque ño yem même goal average même goal différence mais AS Pikine daf ko dougal but dafa dougal but yu ëpp motax meilleur attaquant motax am moo tax AS Pikine nekk quatrième CNEPS nekk euh, avec le même nombre de points mais à 3 points seulement euh, du leader Jambar mi nga xamné mom mo nek ci place bu njëkk ba am 18 points loolu euh, muy situation bo xamné euh, dina neex wa Thiès parce que Thiès CNEPS mo nek ci Ligue 1 bi té dafa def ben remontée bu bu bu am solo. Mhm. waaw CNEPS mom ñi ngi def lu am solo vraiment loolu mom dañ leen ci féliciter vraiment ñi ngi def lu am solo surtout rang bi ñu ñëw jël jëlaat defaat tay voilà Coach ci di bañ ak euh, Bousso ma ngi leen di nuyu au passage euh, maa leen daan wax fii toujours bàyyi leen place ak ndàdde yi ngeen nek donc bu ñu defee remontée bi il faut qu'on les félicite quoi oui. xalifa mii ci ci direction technique bi la bokk mais xalifa seen place ndàdde boobu jógee ngeen fa defe naa dootu leen fa dellooti. ba nga koy wax tamit dañu ne foofu du suñu place on t'avait dit salon. waaw ah, waxoon nañu la ko mais cest dire que xam nga muy nag lu jafe nag ci championnat Sénégal. tegale ci ñetti victoire noonu. yombul ñaari à l'extérieur benn bi rek nga gagné à domicile. ñaari à l'extérieur kooku quand même yombul. bon de félicitations à l'encadrement que. Euh, xam nga football Sénégal parce que voilà su la bëggoon foofu la bëggoon ñëw bon parce que avec waaw voilà avec la manière benn ñaareel bi aussi avec le mental yooyu parce que vraiment pour euh, c'est dans la manière bon donc euh, nga xam ne loolu ak lu mu mënti demee tamit c'est une équipe qui représente la région de Thiès am na ci yoo xam ne waratu ko bon donc suñ su équipe Ligue 1 yi mënul yokk warul wàññeeku je me rappelle très bien am na ci benn émission bokk fi waxoon

Euh, qui a de petites difficultés. Mais euh, Football Club, il ne faut pas que cette équipe se trompe d'objectif. Euh, si Thiès Football Club parvient à se maintenir, c'est déjà excellent. Je sais de quoi je parle. Euh, amitié, Nyungichikao, on peut continuer à espérer que nous continuer lorgner le fauteuil, même si ça peut être difficile, mais ils peuvent continuer à lorgner. Et en National 1 aussi, il y a Walidan qui est en train de faire un bon un bon championnat euh, dans l'ensemble un très bon championnat Ça fait une équipe nous euh, ñoom il aspirer à une montée Africa Promo Foot en Ligue 2 est dans des difficultés ñoom aussi je pense que euh, suñu fixé fixons comme objectif le maintien parce que li nga wax rek mooy déjà c'est une bonne performance pour la Ligue de parce que effectivement parce que ba ma interpellé ci loolu surtout Thiès FC. faut pas qu'il se trompe d'objectif comme ni nga ko waxee bu jum quoi si ñu yaakaar ne Thiès FC dafa war a ñëw daal non. Ils n'ont qu'à laisser le président quand même mu fixer ses objectifs taxaw ci nag nga parce que l'équipe de Thiès FC que j'ai vu ñëpp xam nañ ni foofu mu nekk du place tout à fait day am difficulté. individuellement d'abord, abord da ngay xam ni du place collectivement également da ngay xam ni fii du place donc kooku su fekkee ne gars yi teeyuñu rek mën nañ leen perturber sax. Mm-hmm. mën nañ leen sax perturber ci ci ci ci ci ci ndax. environnement daf ci baax léegi nag moo moo tax interpeller le président pour mu pour mu gëna dal rek xam ni li mu yore du fofu du place am waaw parce que ça ça on le dit on le dit en tant que technicien xam nañ ni sur le plan individuel am na li ñëpp am li Ligue 1 am am na ko sur le plan collectif aussi li Ligue 1 am am na ko donc dafay arrivé des fois nga nekk ci benn situation gars yi war la mëna a nga dal nga dal rek jële ko jële ko fofu facilement c'est comme le loolu même chose même chose. il faut que les gens restent lucides xam un objectif dañ koy fixé. Sont est dans des difficultés on na fixer un objectif réalisable L'objectif réalisable pour sunu équipe yi en Ligue 2 c'est le maintien en Ligue 2 tu calcules quelques matchs tu sais, tu te maintiens tu tu mets le maximum dans ces matchs et tu les prépares dès maintenant avant match yi y a ne match bi match bi match bi match bi dama koy gagné Si ma ko gagné je reste je reste en ligne et tu te prépares pour ces matchs là su laajee supervision nga dem superviser équipe bi préparer leen nga yow da ngay jaar kaw comme ça qu'on c'est ça waaw donc euh, nous, nous, nous, nous, nous, ñu ñu un tout petit peu rek c'est amitié. bi comme ni nga ko waxee position par rapport à sa position même même même Kayru foot aussi par rapport à leur position parce que man damay dugg région bi bon donc nous war nañu war nañu nekk na ci position boo xam bu il faut que ñu ñu def des calculs aussi dans ce championnat là est ce que est ce que man dama war a dama war a fixé objectif ku parce que amitié war na ko mën a wu quand même parce que actuellement nii fi position bi mu toll war na a lorñi euh, la première place waaw ñeneen ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee ñooy nekk ci aussi liñ championnat moo toll foofu am na foo xam bu fa eggee rek bul xëccooti xam xam nga ne fii laa mën a lii laa mën a am waaw parce que xam nga boo xoolee ci SNEIPS dañ benn bëri ñu ne lii lañ mën a am pour cette année ci lii lañ mën a am parce que ay promis lañ moo dal euh, ñeneen aussi léegi nag euh, Africa moom xam na li mu mën a am mooy maintien donc daf ci war a jóg fagaru ci taxaw ci nag pour maintien bi am c'est valable aussi également pour pour ASTS très bien euh, waxtu bi xooj nañu euh, honneur aux ñu tàggatoo euh, Ndeye Comba tey nag amoon nañ mbégte bu bu mag ah dalal la ci sport prestige du hasard nag parce que yaa may wutu léeg-léeg dans le dans le journal en en sport ma bàyyi la nga tàggatoo. man maa leen gën a kontaan ci dalal bi ñu ngeen ma dalal fii di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal gudd fan ak wér ngeen toog fii di nu ba ci kanam a kanam. di ñaanal tamit ñëpp ñu nekk ci biir prestige bi. Ya fi toogaloon euh, toutes les toutes les grandes dames de de prestige ñu encore une fois sargal leen di leen féliciter Khalifa ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw ah mais di content, rek toujours ci suñu ñaar ñi nga xam ne fu ñu dem bokk leen yóbbaale. waaw bon donc euh, di leen gërëm di leen sant aussi parce que très disponible. di la di la sant di la gërëm mais beral nak tant xam rek. Euh, les falen les falen souvent xam nga waaw dañuy am lu xam ñuy toogee te je crois que ne je crois que ne voilà je crois que tooge na ko donc euh, di ko di kontaan ci moom trop di kontaan ci mom trop non faal ñom ñom la nit ñi fa mom la Yalla faale moo tax nit ñi les gens sont obligés faale leen voilà loolu la mais sans oublier madame Ndiaye nak bi nek ki kii fay fale les autres, les autres grandes dames de l'autre côté euh, de la technique, euh, Madame Ndiaye, nous avons dit bu Sissé euh, aussi nous bu émission non seulement mais de l'autre côté de la technique aussi c'est deux dames qui se chargent de la technique et encore une fois euh, bonne fête et à l'année prochaine pour une autre bonne fête de 8 mars yéen mbokku téléspectateurs yi de leen di jaajëfal bu barre a baax ci topp bi ngeen ñuy top ci seen émission sport prestige mbokku internautes yi ma leen di jaajëfal di leen jox dig lundi prochain inshallah.